quatrième combat de la soirée moom nga am loolu ci biir géew bi Bébé Dialy moo war a bëre Papa Sow numéro 2 Bébé Dialy ndeysaan pensionnaire de l'école yi Langsane xoolal coach moo ko toogal seen coach Boy Thiam Boy Thiam moo ko toogal seen moom ngay am na la ndeysaan Boy Thiam moo toogal seen ci di Bébé Dialy waaye Papa Sow kii di Lapou Sagna moo ko toogal seen waaye nag Souleymane Souleymane Papa Sow mi ay temps

passionné de l'économie de l'Intané, hein. vainqueur de Kovasaou, passionné de l'écurie, Marcel Molo, Yambab le pas pour moi, Nathan, aujourd'hui dimanche, aujourd'hui dimanche, 8 octobre 2023, le galerie national, le promoteur Mansourba, à la tête de la structure, Yambab Production organisée, troisième journée de la saison 2023-2024, Bébé Jali, vainqueur de Kovasaou numéro 2, Miginonu. waaw waaw bëri nañu ger nañu ndeysaan retour raté de Papa Sow toog na 5 ans bëriwul 5 ou 6 ans retour raté de Papa Sow